ku ne ku ne Touba rek na Daaru mussi ndax Daaru Musi mooy deuxième capitale mouridisme di dëkk bu am solo ci yoonu murid Touba sa politique dafa am jamono yi di sa politique bu difficile boo xam ne naqari na rek la trop moment bii tey bu ñu la woon duggal Touba ne la xoole ma responsable politique APR pour ñu jàpp ci loxo bi ne la kii la loolu problème la parce que jàpp nañu problème bu Touba rek la ne mais ba léegi nii rek la wut mënoo jël responsable politique ne kii moo fa nekkal APR ku wér koo xam ne boo duggoon Touba bëgg dem ci responsable politique comme na mu amee Linguère nga ne Aly Ngouille Ndiaye mu amee ko Louga nga ne Moustapha Diop mu ne Dakar nga ne Amadou Ba mais amee ko Touba te jàpp naa ne tey régions yi ëpp ci Sénégal dëkk yi ëpp ci Sénégal bu Ndakaaru jàllee votant Touba ko ëppule kon damaa jàpp ne président moo war a jëlaat engagement boppam jëlaat ay objectif boppam duggaat Touba ak yeneen loxo parce que ay responsable nag fi yoo xam ne tey bu ñu leen yabaloon ñu dem fa bari na ci état bi nañ ko def parce que Touba nag du dëkk bu ndaw de mën naa sonal nit ku nekk te président lam fa am bii jàll lam fa am muy mille 35000 voix élection législative passée kooku jàpp naa ne tey su góorgóorlu waatoon tuuti tuuti rek mën naa dem ba gañe dëkk ba mais nii may gis ñu koy doxee nii war na mën a changer tuuti ñu jël fa ay responsable yabal fa ay kilifa xëy na nag ñu ngi ci tànk yooyu ndax maa ngi fay gis jamono jii événement ya fay am ak yooyu ña ngi fa yabal ay ministre yoo xam la ñuy wax dégg na ko parce que Touba problème la dañ fa daan yabal ay nit yoo xam ne buñ àggee bilan président mënuñu la ko wax parce que tey gis naa Macky Sall def bilan boo xam ne Touba kenn du ne amu fa bilan parce que Ila Touba rek dafa doy bilan lii de quatre cent et quelques nga xam ne bi sept yi mu def ci réew yëpp bilan bi gën a rey Touba la ko jëmee kon jàpp naa ne tey bu amee ñu ko waxal loolu am ñu jël engagement yooyu jàpp naa ne Macky day am li mu bëgg Touba waaye da gis mu yebal nit ak màggal nga fay nekk naan mbokk mii laa bokk fii laa bokk faa laa bokk loolu intéressé waa Touba Touba dafa am lu fa nekk muy sancaan yi di ay dëkk yoo xam ne ña nga ci àll ba mën a woote lool gisuñu seen bopp ci yëf yi ñooñu lañ war a wàcc wax ak ñoom wax ak population bi wax ak sancaan yeeg li ko wër buñ ko defee Macky Sall day am li mu bëgg waaye nañ bàyyi bu événement jotee rek ñu dem ne léegi lii dëppaat damaa gis ay nit yu fay action yoo xam ne suñu continuer ci loolu rek président dana am li mu bëgg ñooñu nañ leen dooleel ñu continuer di def action yooyu tuubaa kon Macky Sall dafay am mais su loolu amut lam daan demee rek lay demee dañuy nekk di liggéey di liggéey ba sonn ñu jóge waat fee kay ñëw sukk ay tànkam na murid laa rek ñëpp topp ko parce que Touba moom yeneen daal yeneen kii kii moom dafa am différent tuut ak yeneen dëkk yi dañu war a xam loolu dafa sensible day dëkk bu sensible trop mën nga faa liggéey ba mu des un mois la nga fa liggéeyoon lépp yàqu kon nañuy xool bu baax a baax doxalee ndax yaakaar naa benn dëkk nga koy perte pendant six ans y a quelque chose lu mat a en tant que mouvance présidentielle 600 ngay perte Touba ak population bi nekk ci Touba ak li ci aju ndax ku perte Touba da nga perte Italie da nga perte Espagne loolu moom day ko seetlu li ma la wax ku mas a perte Touba rek perte nga Italie perte nga Espagne parce que ñoom ñoo bokk même ku ñuy woteel waaw kon loolu mat a sóoraale ñu xool doxalin ban fay doxee changé ko bu baax a baax mais nag ba léegi législatif ba léegi gisaguñ ci yenn changement yoo xam ne ñu ngi ci loolu. dañu war a taxaw pour changer loolu situation boobu mën a réglé wu ñu xam bu baax a baax président man faa am ndam ndax am na fa bilan. mais bilan bi ba léegi benn ministre booy gis muy taxaw wala benn DC wala benn député di wax bilan Macky Sall Touba amul.